nekk kenn ci jëwriñ yi daara Serigne Habib Mbacke imam ci Touba. Euh, dama fee ñëw nag jiite délégation boo xam ne mooy rabitatul madaarisul quraan fi muy ligue des écoles coraniques de muy mbooloo mi nga xam ne ñoo lënkale li ëpp ci daara yi ne ci Sénégal te kokk gi ñëw tey nekk benn banqaat benn section ci biir mbooloo moomu. li tax ñëw fii mooy ñëw fi ngir ànd ak suñu bokki daara yoo xam ne ñoo bokk ab liggéey te rabita boobu ma wax muy ligue boobu ñoom ñu am ci ay taxawaay yu mag a mag ci poste responsabilité bu buñ seetee ñeent ñi ko jiite sëñ Maxtaar laa loolu mii nga xam ne moo jiite daara ji moom mooy ñeenteelu kilifa gravité bi ñu am ci yu mag a loolu itam maa ngi koy wax léegi sama kàddu ak sant yàlla rek ak it xam ne yàlla la ma waxoon dara du ci deñ ndax ma waxoon ne bu ngeen nekkee ci li li ma leen digal sama ndimbal dañ leen fa fekk wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'miniin Euh, loolu daara bi muy door ay néegi ñax la woon ak i mbaar yoo xam ne suñu borom sax natt na leen li ñuy wax nattu yu baree baree bari yoo xam ne bu fekkonte ne ndax euh, li ñuy wax nattu wala daf koy wax waaye nattu mooy sàkku lay suñu borom moom nattu koo xamul nga koy def mais suñu borom umpalewul kenn waaye nag dana la teg loo xam ne day seet ba xam li nga engagé ndax am nga itte wala dëggu man koo eggale wala déet euh, nattu boobu bokkoon na ci waxtu wu ne at mu ne rek daal di daan lakk te ay néegi fee ñaax fi ne woon at mu ne mu lakk seen bagage yëpp lakk ba àggoon na ci jaaxal ak sëriñ bi mu bindoon benn lettre boo xam da ko adressé woon mboolem xalifa généraux yi ci réew mi waaye yàlla dogal ci at moomu la benn euh, commerçant bu mag boo xam ne suñu borom wërsëgal na ko ñu di ko wax Alaaji Maxari gi mu ne woon ci Thiès yabaloon benn nijaayam fekk benn xub bu mu dégg rek ñu cey wax njariñal daara ak njariñal ku ci def sa ñaq ci biir daara mu xemmem nag am tuyaaba jooju Eh, mu yebal nijaay jooju ne ko wëral ma réew mi nag ba xam da nga fi gis benn jàngukaay boo xam ne daal ña fa ne ña ngi jàngal alxuraan jàngale mu wér te dëggu ci te yàlla rek tax yàlla dogal mbokk moom wër na réew mi fu mu demit dawul présenté boppam day ne ca daal ja mel ne doxalee bu fa joox am fa ay fan di nemmiku boo léegi mu jàll ba yàlla dogal meeg si kook gii bu wax ne ne am na fi lu toll juróom-ñaari fan di eh, di ànd ak gone yi di dem tool di dem ak a dikk ba gis ne fii daal li mu doon seet mel ne gis na ko fi mu delluwaat ba mu demee wax ko nijaayam nijaay ji waxut waa daara ji dara dafa tàmbul rek yónnee am waaye camion suuf yi ñu ñëw dañoo xëy xëy xëy rek gis rek camion yi sotti ko ci daara ji ñu gis ñu tàmbali indi camion ciment ñu indi lii lan la mu euh, mbokk ma doog a ñëw rek xamal leen ni leen dafa bëgg tabax daara ji yàlla dogal la daara muy fi mu dëkk nekk muy barab bu njëkk bi mboolem étage yi ko wër yëpp ci liggéey bi El Hadj Makhari Gueye moom la ñu ngi ñaan yàlla nangul ko ko te gërëm ko te dolli ay xéewalam fa mu nekk ci barsax Muhammadiya waaye gannaaw ba loolu ñi jaaroon ci daara ji am nañ pas-pas ak yëg-yëg bu toll ne gisoon nañ daara bi ñu nekkee jafe-jafe yi ñu doon am ak coono bi ñu doon sonn ñu am xalaatu boole seen bopp ñoom boole ñu naan ci daara ji di waxtaan ak wayjuri ndongo yi ak soppee alxuraan yi ak jullit ñi nga xam ne am nañ alalt bëgg lu baax ngir ñu jël seen alal yooyu ñëw di ko ci daara yi loolu moo sos bis bii bi loolu amee nag wax di yàlla suñu moom defal leen tawfeex joo xam ne ñuy dox waxtu wane lu ñu am rek bu ñëwee def eh, lam tollool ba léegi ñuy def fi gis yëpp li ci ëpp ci loolu lañ ko tabaxee ba ci hôpital beeg e, yi fi nekk yëpp ndax université bi nga fi gis ku ñuy wax Alaaji Abdou Silla nekk koo xam ne kenn la woon ci daara ji moom moo wëlbatiku bokk ci ñooñu ñëw tabax ko fi def ci milliard boo xam ne teg na lu baree baree bari ku ñuy wax Alaaji Sëriñ Mbuub moom itam daanaka dundu daara ji dañ ci participer lu baree bari kon yooyu daal mooy li nga xam ne seetlu nañ ko ci biir daara ji waaye ak sant yàlla rek te xam ne it ku ne ci li suñu borom bëgg incha allah ndimbalam la ngay dajal. billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qad jaakum min allahi nurun wa kitabun mubin